bismillahi rrahmani rrahim alhamdulilah alhamdulilahi allazi anaara quluba ibadihi almuttaqin bi nuuri kitaabihi almubin wa jaala alqur'ana shifaan lima fi sudur wa hudan wa rahmatan lilmuminin wasalaatu wasalaamu ala xaatimi alanbiyaai walmursalin سيدنا محمد النبي الأمي العربي الأمين الذي فتح الله به أعينا عميا وآذانا ظما وقلوبا خلفا وأخرج به من الظلمات وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور صلاة وتسليما دائمين إلى يوم البعث والنشور وعلى آله وصحبه الأطهار wa asxaabihi alhaadil al abraar wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi ddin wa baad asalaamualeykum wa rahmatullahi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di nuyu fii ci Assalaamy TV ngeen di ànd ci seen mbokk oustaz Xaadim Guèye feggoo ci xarala gi ak Habib si walla Habib Thiam di ku baax di ku yaru di ku yiw su ko defee nag nu ñëw yéen ci émission bi ñu baaxoo def muy yóbbalu ndaw ñi tasawuru sixaar yóbbalu ndaw ñi nag jataay la bu am solo jataay la bu ñuy wane xale yi ak seenu nekkiin ak seenu doxaliin ak yar bi war a nekk ci ñoom ñoo ngi koy sàmmonte ci suñu diggante ak yéen ngeen ci xel xam ni xale dañ koy yërëm dañ koy dimbali dañ koy wétali waaye ci biir jataay bi nag ñuy nuyu bu baax sëñ Fallou Garas Silla di magum diine mu baax te bëgg lislaam tey jàmbaar di baalu àq nag auditeurs yi ñuy diglu yëpp ak di ñu seetaan ci télévision bi ak ñi ci diw ci wàllu rajo bi suñu invité bi nga xam ne moom lañ doon xaar yàlla dafa dogal mu amagun ngànt léeg si ba dañuy ñaan yàlla jataay bii di ñëw mu ñu ñëw ñu continuer ak moom jataay bi ndax nawet bi ak xat-xatu taw bi moo gàllankoor bi am muy siyaar yi ñëpp di leen bal xaq ñu bàyyi xel ni euh, ndaw dafa war a góorgóorlu ci jaamu yàlla war a góoru ci yaru ndax am xel boroom xam-xam yi ne ñu daa am solo lool ci wàllu yar ni yar amee soxla lool ni yaram amee soxla lool ci doole pour aw ñam ndax boo lekkul doo am aw ñam waaye boo yoruwul sam xel du war a nàcc ci ana boo amul am xel sam xel du nàcc ci nite te yar mooy màngasee bi nga xam ne mooy dimbali nit ci lépp lu mu nekk su ko defee nag boo nekkee jëmm te bëgg yàlla tey góorgóorlu góorlu dangay fonk sa ñaari waajur fonk ay sëriñam fonk lépp lu yàlla digle moytu lum mu tere itam nag ñu bàyyi xel ni ak koo mën a doon ak foo mën a bokk bàyyi xel ni kun ibna man shiita waktasib adaban yuxniika mahmuduhu ani nasabi inna alfata man yaqulu ha anaza waaye laysa alfata man yaqulu kaana abi man ni doo nekkal doomi ku la sopp ku la neex nekk sa wéyjur waaye fàggadikul yar ak i teggin ndax mujj ga yëpp la mu lay jural mooy teraanga ak yiw ak koo mën doon nag ak doomi koo mën a doon rek su fekkee am nga yar ak i teggin ak yiw yàlla mën naa dimbali nga am la nga gën a bëgg nit yi day xam ne maana diw waaye diw mooy sama baay rek te yaruwoo amul solo sa diw bu dee sa baay na nga yor yar bu rafet na ànd ak yiw gu mat na fonk sa bopp fonk sa doxalin ndax loolu mooy ndam waaye soo ko deful nag meloo na gënal nit ñi te meloo na yàlla bëgg te defoo lu la gënal ci islaam su ko defee kon yar ak teggin mooy dimbali nit te ndaw dañ koy yar jàngal ko yiw ba mu xam fi mu bokk ndax euh, juróomi yëfa ngi yoo xam ni du mën a mat lu dul juróom yi feddali ko mooy askan woo mën a bokk balaa met mat gaa wér nga ànd ak yar ak teggin loolu mooy dëgg ab rafetaay balaa mën a saf xorom mbaa muy mel nen day ànd ak xorom am koom lu mu rëy rëy rëy te tebewoo du feeñ loo am am aw fit te ñimewoo du feeñ dangay ngay ñime boo amee aw fit am doole am mën a def dangay am fit lu jëf mooy mooy mooy feeñal sa mbir te it nag jihaad du mën a feeñ loolu ci taw nga am tawfiix tawfiix suñu borom ak jàppandal ci loola moo tax yàlla subhaanahu wax nu ci alxuraan wallahu jaala lakum min anfusikum azwajan wa jaala lakum min azwajikum banina wa xasada wa rasakum min atayibaat ca suratu naxli yàlla nee na waajal naa leen ngeen am ñu ngeen denc ci seen biir ki ngay jël sa doomi nijaay lay doon wala sa doomi bàjjen wala ak lu mën doon rek nit la ci yow sa mbokk la yàlla ci dogal itam su cay doom juddoo nga am ci ay sët am ci ay doom amin wu rafet te ci kéemaane suñu borom la bokk itam wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma bokk na ci kéemtaani suñu borom fàggul gum fàggul nit ñi ci seen bopp ñu bàyyi xel ni danañ am ay doom am ay njaboot yoo xam ne ci ñoom lay bàyyeekoo waaye soxna yi ngeen di amit yàlla dafay tàbbal ci seen biir mawadda ak rahma mooy mbëggeel ak yërmande su mbëggeel amee rek yéen mën am sëy ba mën naa neex man ngeen ciy jur doom yu baax doom yi ñuy jur nag dañu fekk ñu ñu doon ay tànneef di doon ay nit ñu yiw di doon ñu yar-yar bu baax yiwal leen ba mu baax ndax fexe ba nit ki am xaalis walla nga fexe ba mu am xam-xam te yaroo ko loolu la ko yàqal rek xale bi soo koy jàngal danga koy jàngal yar ak yiw mooy defar jikkoom kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax xam nga doom balaa mën a am ñaari way dencante séq ci yoon te yonent yàlla muhammad dañoo jàngal ne man istataa minkum albaata falyatazawaj wa man lam yastati fa alayhi bi saw fa innahu lahu wijaaun rawahul buxaari yonent yàlla muhammad moo nu jàngal ci xadis ne na ngeen bàyyi xel ni ci seen nekkin na ngeen wut ku ci mën a denc soxna na ko wut ku mën a denc na nga ko wut te fekk war na kus day nekk ci yow waaw gu jëkk yi mooy wat u da mën a séq jigéen ci néegu sëy dëkkoo ko noon nga ca des mooy nafaxatu ab fere na nga ko am pour mën a taxaw taxaw ci ndaw si di ko jox li muy lekk ak li muy naan ak fi muy tëdd ak li muy sol ci ko toppatoo kaaf ga mooy wa euh, mooy loo ko wodde waaw siin ga mooy sukkunaa na wutal ab dëkkuwaay bu mu mën a nekk dëkk fa seen saat ga mooy sa daxatu da nga am can goo ko jox sëy bi door a mën a sëy door a mën nekk su ngeen àndee nag doom juddu ci doom ji su juddoo ba ba muy am sept ans juróom-ñaari at doo man nax fo ak bigal ko ak defal ko ak defal ko. 99 point ndax ndaw la pour ndaw loolu nag doon kilifa yaway def ay jikko ci moom yuñ lay nawe jikko ci moom yuñ koy nawe jikkoy teraanga ci moom yaa koy jàngal xale bi ci ndaw ak di ko delloosi kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax su amee sept ans dañu naan côté doon buur buur am ceew aw yoon ndax xale bi juróom-ñaari at amagu ko nga di ko dóor maa ngi koy fitnaal maa ngi bugg koo teg tegin wu jafe dana jafe lool waaye da koy naxtaan li bëgg nga di ko defal te di ko teg ci yar ak yiw ak ay teggin loolu mooy waru garu nit ki su ko defee nag la mu nekk ci di ca góorgóorlu te def ko yittéem kenn ku nekk bàyyi ci xel ndax su amee juróom-ñaari at yooyu tegaat ci juróom-ñaari at soo ko bëggee def buur buur am ci yow aw yoon ndax soo ko bëggee def buur lu ko neex def mu dem ba am fukki at ak ñeent di doxee na ko neex ak maa tey yow la nga yow yoon day dal ci sa kaw ndax da war a yor xale bi kon xale dafa am fu muy tàll fu muy toll des koy dimbali des koy delloosi des di defaat defaraat am xelam ci yar ak jubbanti waaye nag su rombee juróom-ñaari at yooyu rombaat fukki at ak ñeent tegaat ci juróom-ñaari at. moom su bëggee def boppam buur buur am ci moom aw yoon ndax day day am ñaar fukki at ak benn su boobaa yar moom wees na ci biir mbiram ndax des koy jubbanti di ko joyanti ci ndaw goo mu nekk bu ñu ko deful nag bàyyi ko ba mu am fukki fukki at ak juróom fukki at ak juróom benn ba ñaar fukki at ak benn su defee lu dul yoon yoon ci moom lay am aw yoon kon xale dañ ko dañ koy teel a xamal boppam teel koo yar yarub lislaam teel koo jubbanti teel koo gëmloo yàlla subhaanahu wa gëmloo ko yonent yàlla Muhammad xamal ko Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Moustapha ndax Sëriñ Bamba Xaadim Rasul dafa wax ne tariqatul adabi rahmatu saxiir kal abbi wal ummi wa tawxiirul kabir wa jaalu mislika ka nafsika sawa li wajhi arshi istawa nee na yoonu teggin mooy yërëm ndaw yërëm ndaw waaye itam ngay nga bàyyi xel bàyyi bàyyi xelit yaay ak weg mag nee na loolu mooy yoonu teggin yoonu teggin mooy yërëm ndaw ñi ak mag ñi te mooy ndey ak baay ak jox cër mag ndax defal sa jëmmi bopp ni kenn ku ne nooyam ñu jàppal ni ñëpp ñooyam ngir kan ngir jëmmi yàlla mi bind jaam ñi te yem ci kaw ars kon loolu lu jar a bàyyi xel la kon nag yërëm ndaw Euh, dafay mat a bàyyi xel ba mel ni xale bi yéen bokk ndey wala yéen a bokk baay ci yërmande weeg magit mooy nga mel ni ab jaam bu woyof ci moom ba nga xam ni da ko nangu lool njox jox ko cër jàppe ko comme sa jëmm bañ koo wane ko maa la gën wala maa la pële lii te nga xam ne giin mooy taaru boroom xam-xam mooy taarub kii xamle itam te mooy takkaay mooy ràngaayal aji am xel ak ku lewet ku lewet ku manti doon te ñu xam ne lewet lewet lu ak woyof mooy bopp jikko yi baax lool ku ko ñàkk def rek da ngaa daal di set mbaax set ci yiw te itam da ngaa raflewu ci jikko yi ngëneel kon nañu xam ne yàlla mi bind moo nu bind ñu xam ne wuy jur yi ñoo nu jur ñu jox leen ay cër te bàyyi leen xel te yar suñu jëmm ci suñu nekkin te xam ne loolu moo nu jariñ kon isa tasawajal abdu euh, faxay sëkk ma la nisfa diini yi fal yettaqillaha fi nisfil baax yi dañu ni ab jaam saa yu ko yàlla dénkee soxna ah na bàyyi xel ni genn wàllu diine mi ngi ko yor waaye nag na ragal yàlla ci di ci ci beneen cër bi ndax tànn jigéen ju baax ak tànn boroom kër bu baax mooy tax a am doom yu baax alxuraan saxal na loolu auzu billahi min asheytaan rajim fa saalihaatu xaanitaatun xaafizaatun lil xaybi bi ma xafisallaa ma nga ca suuratu nisaa yi aaya 24 ñaar fukki ñaar fukkeelu aaya ak ñeent nee na ñu baax ñi tey topp yàlla ñooy wattu seen ëllëg ñëwagul ci li leen yàlla sàmm kon jullit nay bàyyi xel boppam digganteem ak boromam ba buy jël soxna mu sànn soxna su yiw su baax su mën a fonk ak njaboot di ko sàmm su ko defee itam muy jur wi takk na doon kilifa gu yiw gu fonk diineem gu respecté ndigali suñu borom ji ndax yonte yàlla Muhammad kat li mu nu jàngal euh, sallallahu alayhi wa sallam ci hadis bu ñu jëlee ci Abdullah ibnu Amar eh, ibnu eh, ibnu eh, Abdullah Amrin al Asi maanaam dafa wax ne yonente yàlla Muhammad nee nax addunya kulluha mataa wa xayru mataa dunya al maratu saaliha hadis boobu muslim moo ko solo Euh, Abdullah ibn Amar ibn As dafa wax ni su yonent bi nee na àddina de lépp bànneex la waaye li gën a nekk bànneex ci àddina mooy jigéen ji yiw almaratu saaliha addunya kulluha mataa waxee noo tax almaratu saaliha jigéen ji yiw mooy tànnee fi àddina mooy ngëneel li te alxuraan dañoo jàngal itam ne yaa ayyuha alladina amanu xu anfusakum wa ahlikum naaran ma ngi ci suratu Tahrim juróom-benni lu aaye suñu borom nee na yéen ñi gëm yàlla fegul leen seen bopp ak seen njaboot sawara sawara lu matt a daw la wuy jur wi na sàmm njaboot gi ci lépp lu mën a doon na sàmm njaboot gi buum juddoo ci nàmpal muy taxawu ndeyam di ko jàppale di ko jox xéewal ak tiraanga bu demee ba nekk mag dëgër mu toll ko ci jubbanti ndax noonu naa la yonent yàlla muhammad noon na murru awlaadakum bi salaati isaa balaxu sabaan wadribuhum isaa balaxu ashran yonent yàlla muhammad alayhi salaam noonu na na jàngal xale yi na nangeen na yar xale yi digal leen ñuy julli bu ñu amee juróom-ñaari at suñu amee euh, fukki at nag na ngeen jël yar yi dooma leen ci julli ak jaamu yàlla kon nañu sàmm suñu bopp sàmm suñu cër sàmm suñu njaboot te ni ñu leen di jàngale julli ak jaamu yàlla noonu lañu leen di orienté ngir ñu bàyyi ay safaan ak naka sul noona ak wax ko ak def ko ndax lépp lu ñuy def te defuñu te mënuñu ko amuñu man manu def ko it nañ koy sàmm di ko moytu ndax loolu la islaam santaane lu jara bàyyi xel la lu jara sonn la njaboot gi ñoo leen jor ci ndigalal suñu borom nañu leen di digal seen liñ leen war a digal fu ñu dem mën a ànd ak ñëpp àndin wu rafet yor kelu qualité jullit nekk itam tànneef ndax loolu lu am solo la ndax sëñ Bamba bu naan ah, wàjtani bu ma sa saxaawa moytu leen place yi ñu texee di te digal ni place yi ñu texee di kat palaasu yàmbaa palaasu fo palaasu caaxaan yooyu yëpp yu jara moytu la ah, ci biir jamono boobu nag nu xam suñu bopp xam sunu borom xam valeur bi ñu doon xam ni ñuy jo ni ñuy nekkee xale yi ndax ndaw soo ko juree da koy xaatee la xamal ni mu war a mel ak fi mu juddoo ak qualité ba na war a dox ak kan kan kan kan la war a roy ak kan la war a moytu ba du fa du fa dem am na jotaay yoo xam ni amul solo. yéen a ngi yi dañuy dem di football kat taxawaalu ak di dem ci baar yeeg baal yeeg xawkaay yi ak place yi nga xam ñuy texee di ñoo fay dem boobu xale yi danga koy teel a xamal ko xale mu xam ñu muy àndal ak fu muy war a dem ak fu mu war a bañ ak lu mu war a moytu loolu lu am solo la ci xale pour jar ko moo tax suñu borom subhaanahu wa ni na ngeen na ngeen na ngeen moytul seen bopp ak seen yaboot yi sawara daal di ni wa amur ahlaka bi salaati wastabir alayha ma ngi ci suuratu Taaha aaya euh, cent euh, cent trente deux nga kon euh, aaya téeméer ak fanweer ak ñaar ñaar na nga digal sa njaboot julli te muñ loo leen ko te muñ loo leen jaamu yàlla ndax jaamu yàlla dina metti lool boo dee xale waaye dañ la koy gëm gëmloo ni da ngaa war a xam yoon wi nga war a jaar jëm sa borom xam ni sëriñ Bamba Xaadimu Rasuul nii li mu yar ci njabootam yar ko ci dongo yar ko ci taalibe yi ba ñu yor jikkoy mbaax jikkoy ngëneel ba foo dem gis ab murit da xam ne kii muridullahi saadix la ahmadul xadim borom Touba ñi nga xam ni moom moo xam lépp te man lépp te yàlla dooleel ko ci sañ-sañam mooy jàngal nit ñi ni ñu mar a mel ak yan jikko lañ war a ak yan qualité lañ war a yor su ko defee nag boo seetee ku mel ni sëñ Mourou Moustapha Mbacke nga xam ne al Moustapha Mbacké al ah. Karim nga xam ne ku tedd ki te moo njëkk a sëñ Bamba Xaadimu Rasuul ak ni mu doxale ci kanam murid yi doxale ko jumaa ji njëkk xalaat jaamukaay bi yàlla bi ba ba mu tollook laxo jëmmi doomu aadama ba mu tolloog jëmmi doomu aadama moo bàyyi ko fi tofal sëñ Moodu mu sëñ Moodu mu sëñ sëriñ Fàllu Mbàkke Cheikh Mamadul Faadal toog ci xilaafa di yare di yiw di neexal xale yi ba nga xam ni xale yépp dañoo doxee nu leen neex ndax ñi may fere ak ñi may def di leen jox miskit di leen jox tàngal leen jox xaalis ñuy def ci seeni poos moo daal di ni waaw lépp lépp rek lépp rek lépp rek ni gàññi rek lu mbàkki galas tuubaa rek lu waaye bëgg rek am ko nga xam ni lu waaye bëgg foo mën a jóge ngay murit baa nga dib tijaan baa nga dib xaadir baa nga dib laayeen lu mu mën a doon foo mën a bàyyee ñëw di sa bëgg-bëgg suñ fàllu mbàkke mu defal la ko ca anam nga nga ko doon wute wutin wu rafet ba nga xam ne buñ naan maam yàlla nga fi yàgg rek mun dàkk waay dàkk rek dàkk rek nga xam ni wanewul nii laa toll wanewul ni ndàngam rek fi am te mbaax gaag mat gaag yiw ga moom rek la def ak nangoo fere ci njaboot gi waaw ba ñu ma sànq nag mu ne waaw waaw bu fi jógee rek bàyyi ñëw maam rek laa su ba fi jógee rek bàyyi ñëw ba mu fi jógee la sëriñ Fàllu Mbàkke dal la dogal sëriñ Bamba Xaadimu Rasuul euh, nekkatu fi waaye nag euh, euh, sëñ sëñ sëñ Abdou Lahad ñëw toog xilaafa di xalifa général des mourides daal di atti nit ñi teg nit ñi yoon tegin woo xam ni dafa jéggi dayoo ci xalaat ak xel ba ba kenn ku nekk di doxee nam mu war a doxe ci melokaan te moo leen teg ci yoon ak yar ak jubbanti ak nàngam di du fi am ba mujj ni Touba gii dinaa fi def barab boo xam ni gendarmerie lay doon ku wàcc yoon ñu ci ak koo mën doon kon yar bu rafet ak jubanti bu rafet la yar njaboot gi su ko defee kon ak kii buy jur ci doomam mooy jàngal ko téereb yàlla bi jàngal ko téereb bi jàngal ko nu ñuy sibaaxa mooy fii fii ci géej dañ koy jàngal xale yi ñu man ko ak sànni jam sànni fital ak nu de nan nan la ñuy fitale ndax noon yi dañuy tax xale yi dañ leen di jàngal nu ñuy def ba man a armé di xeex bu xeex jotee ba xale ak léegi jamono ji boo seetee karatéka la ñuy def ak taekwondo ah ak sido yooyu yëpp dañ koy def ngir défendre seen bopp waaye defar seen yaramu bopp su ko defee loon ak jur ci doom da koy bàyyi xel bokk na ca liy waajur war a defal doomam tudde ko turu rafet ginnaaw bi mu ko wutalee ndey ci farata ak sunna mu tuddee ko turu rafet jàngal ko téereb alxuraan bi daal di koy dencal soxna bu matee denc soxna mu dencal ko soxna ndax waru gar lay doon ci moom kon yooyu ay jàngat la yooyu war a def ci xale yi fexe ba jàngal leen téereb yàlla bi ñu xam seen seen seen diggante seen borom suñu xasee di jàng téereb yàlla bi day am solo trop moo tax àllimu awlaadakum bi salaati isaa de sabaan wadribuhum isaa balaxu ashran wa farixul maraadiya waaye bu ñu amee juróomi bu ñu amee fukki dañu leen séparé xale bu góor ak bu jigéen du ñu tëdd du ñu fanaan te itam yonent yàlla Muhammad jàngal nañu ci lool ni maanaxala waalidun waladahu afdala min adabin hasan baay defalul doomam benn yar bu gën yar ko yar bu rafet yar bu rafet moo gën nekk kado bi bàyyi di defal doomam su ko defee kon loolu ñu jéem ci jëmbat suñu bopp bàyyi ci xel bu baax a baax te xam ne jàngal nañu moom yonent yàlla Muhammad man awa yatiman ila taamihi wa sharabihi aw laahu lahul jannata albatta yontu yàlla Muhammad nee na ku jël ab jirim di ko dimbali ak di ko jubanti di jox ko aw ñam di ko jox muy naan yàlla warul na la aljanna illa an yaamala zanban laa yufar lu dul mu jëf-jëf joo xam ni day bàkkaar bu yàlla dul jég bu yàlla dul jéggale waaye wa man aala salaasa banaatin aw mislahunna min axwat ku am ñetti doom yu jigéen wala ñetti mbokk yu jigéen fa addabahunna wa na nga yar leen yar bu rafet yar yërëm leen yërmande ju rafet xataa yughniyahumullah ba yàlla dogal wërsëg bi mu war a dogal ci ñoom ak man-man bi ba ñu teg ci yoonam yoon wu jub an am amin wa war a nekk ah awjabalaahu lahul janna yàlla waraloon na ko aljanna kon loolu dafa rëy lool bi yonent yàlla Muhammad waxee loolu rek saxaaba yi ne ko waaw yow yonent yàlla Muhammad aw isnatayni wala hatta loo xaaloo waahida la xaala waahida mu ni ko boo doon ñaar mu ni boo doon ñaar itam baax na ba bu doon benn sax mu def ko yonte yonte yàlla Muhammad dañ leen saxalal leen ba ci benn kon ku yàlla nattoo itam say bët gisatu itam nga gëm yàlla doyloo ko nga bàyyi ci xel ni loolu ab nattu la am na ñoo xam ne dañoo am ay doom doom ya ba léegi nii du ñu gis waaye da ngeen di saytu di leen yar di leen yor ba ñu mat a denc ay soxna wala ñii di ay jigéen dem ba ma ramata dem kër nga di naxtaan di teg ci yoon wow lu ca nekk ku ca nekk dana ko def te fitna den benn du ci am loolu wuy jur bu baax dëgg dëgg dëgg te mën a yor njaboot moo koy def waaye jur naa doom ji melul ni ma bëgg tax nga bëgg a doxee sa sago jàpp di doxin wi nga dox moom moo war a am loolu du xalaat kon loolu dafa jar a bàyyi xel bu baax a baax euh, ñu bàyyi xel ni xasan ak xuseynu bi ñu nekkee ay ndaw li ñuy baax lépp ak a yaroo ko yiw dañoo daan ñëw ci kaw yonent yàlla muhammad di tëdd ci kawam ba bés ali yin ni ces yar ba gëdd leen leen wàcc leen seen kaw maam aca wàcc leen yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam xasan ak xuseynu daal di tëdd yonent yàlla muhammad yaa yaa jibril di kër yonent yàlla muhammad ni ko bàyyil ali yonent yàlla muhammad daal di ni Alioune baal sama sët yi bàyyi leen bàyyil sama doom yi bàyyi leen dama leen a bëgg yàlla ni ko subhaanahu wa taala yebal jibril mu ni ko yonent yàlla Muhammad bàyyil Alioune yar njabootam ki bàyyi leen ak njabootam yo seen wuy jur yo yar leen kon yar bi xam nga ni am na solo lool ñu bàyyi ci xel bu baax a baax te góor góorgóorlu ji te xam ni jubbanti xale dafa am solo trop benn da koy jàngal jikkoy gor jàngal jikko ju yaru jàngal xale ak yeewu jàngal ab xale itam mu xam ndigali yàlla yi ak tere suñu borom yi xam sëñ Bàmba lim digle ak lim tere te bëggan ko ndax njabootam gépp leer sëñ Bàmba xaadim rasul ku laal ci moom di tànneef murit yëpp a yaru waaye seet murit yëpp bu dee murit du lay saadix dana yaru lool ngir borom Tuubaa melokaan mu am ak jikkoom ju mu yor ak doxin mu jàngale kon loolu ngëneel la xamal koy tere suñu borom yi subhaanahu yar ko itam ci ay mbokkam yar ko itam ci mbooleem <clears throat> ku mbokkal deret ak ñu mbokkulul deret yar ko itam ci dëkkandoo ak nu mu war a nekkee moom xale yaral ko itam ci maam sëriñ su tedd si ba ñu xam seen jubluwaay xam xam ne kii dañ ko war a teral wala dañ ko war a defal ay yóbbul ay tiraanga wala kii dañ ko war a diggal buy diglee ñu def ko bu teree ñu bàyyi xamal ko itam nag nan lay doxe mbiri mbiri sekkereem waaye nan lay moytoo al ashrar mooy kàccor yi ak band yi mu topp itam nag bañ a topp ay waykat ak ay fecckat ak yooyu yëpp mu moytu ko moytuloo ko lit rëy rëy dañ koy moytuloo xale yar ko xamal ko ni ko bul rëy bul rëy bul doxee nu wut dox ndax jibril mas naa ñëwal euh, benn xaj mu ni ko suñu borom nee na nga yët ma loo xam ne yaa ko gën ci kaw suuf wax nañu ni xaj bi di wër ba yàgg <clears throat> xaj bi nooy dafa daf ko dafa ma jibril la ma sa wax ni ko andil ma loo xam ne yaa ko gën ci kaw suuf yow yow jibril jibril wëndeelu ci àddina di xool ba yam ci benn xaj boo xam ni dafa dee ba métt mu ne ak ah, kii xanaa maa ko tane dem ba koy jël yaramam yëg ni est-ce que maa ko gën fa kanamu yàlla bàyyiwaat ko mooy waaye demal ay li yoon nga gis koo xam ne yaa ko tane koo gën kay yow jibril yow laa yónni nga def isra wal mi'raj nga dem ànd yónni yàlla muhammad ba mu def isra wal mi'raj yónni yàlla muhammad ak lu mas def ci yow laa koy yow moom laa yónni ci yow te moo gën ci mbindéef yi kon loo gën ci kaw suuf mu dem wër dindu penk ba sow gànnaar ba gànjool gisul lu may xaj boobu rek mu jàpp ne xaj daal maa ko tane nag daal nigal ma yëkkati ko nee na kes xaj ba ba première asamaan yaram bi dawa dawa dawa daw mu tiit wàcc xaj bi mu daan mu ëgsi ci boroomam subhaanahu wa taala ni ko ay li yéwén gisuma loo xam ne maa ko gën suñu borom xamal ko ne xaj boobu nga jëloon de soo ko indi woon ba fi man ndax yaakaar ne yaa ko gën ma far saw tur saw saw saw tur ca diwul ma la diwaanul ma aykat kon ma far sa tur bi ci diwaanul malaaykat yi ndax jàpp ni yaa ko gën kon rëy dañ koy dindi ci ki fexe ba doo rëy doo ñaaw jikko doo ñaaw xalaat doo defee defin bu baaxul te itam doo wane sa bopp kon loolu dafa mat a bay mat a bàyyi xel bu baax a baax kon nañu jàngal xale yi ñu moytu rëy moytu xeebaate jàngal ko itam naka lay nuyoo ak nit ñi su demee ci nit asalaamualeykum nga baal xabal ko baat bi boo ni ko nit nuyoo mu ne la waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu ndax ni ñuy nuyoo xale yi xamuñu ko am na xale yoo xam ni bonjour la ñu xam bonjour continuer dem am na ñoo xam ne dañu naan allo am na ñoo xam ne dañuy kii naan la paa sawa wala mère sawa nangam nangam duñu la jox benn teggin ak benn yar loolu nag baaxul ci xale <clears throat> xale dañ koy jàngale naka lay nuyoo nit ñi nuyoo bu rafet su ko defee itam jàngal ko lan lay wax balaa moo lekk balaa muy lekk jël aw ñam di ko lekk day wax bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu raxasee ay loxoom ba mu set bu nekkee itam ci kanam euh, kanam wuy juróom yar bu muy toogee ci moom ak bu heure tëdd jotee mu xam ni daa war a dem fatu ci am heure yoo xam ni xale du ko dugg ci ndeyam ak baayam du dugg seen néeg ci heure fajar ak digg bu cëg ak ginnaaw bu ñu reeree ba pare tey wormaal ay néeg yu war juróom te itam bu dee xale bu jigéen nga jàngal ko nan lay muure boppam dafa war a jàng muuru su amee juróom-ñeenti at dafa war di commencé di muuru ndax col gi dafa war di siw silwise colu góor day jot colu jigéen day jot waaye jigéen moom bu nekkee sax euh, xale bu ndaw bu la neexee bi mu xësee fer ij fer fer fer fer ci soow nga di ko jàngal noonu luy muuroo bu xësee am juróom-ñaari at day mën muy muuroo bala mu am fukki at xam muuraay nekk ci gëm ko xam ne ay cëram da ko war a muur te itam weer war na ci waajur wi muy nëbb weenam bi bañ di ko génne xale yi bañ ci ko di ko gis ak góor góor sëriñam moo tax daa war di muur yaram bi ba booy nàmpal sa ween sa doom ci ween wi day fekk nga muuru muuraay goo xam ni ween wi xale bi rekk ciy nàmp nga xam ne doo bàyyi sa yaram ci biti rawatina nag ñi nga xam ne du ñu nëbb seen dara seen mbagg yeeg seen ween yeeg seen baat bi yeeg seen lépp dañ ko bàyyi noonu te alxuraan saxal ne wa wala yadribna bi xumurihinna ala jubihinna jigéen ñi nañu leen jàngal ñuy muuru kon loolu lu jar a jàng la xale bu jigéen su ko defee mu moytu itam di xeesal aw yaramam loolu waru gar la ci ci ci wéyjur wi buy nàmpal doom yi mu di ko di ko di nëbb ween wi waaye itam nag mu bañ di ko naan nàmpale ay biberon di ko ji ndax day day ticc am xelam ba mel ni xelum mala moo tax waykat yi jàngale ñi rabbu banikum alimuhum hazibu fatayaatikum fal ilmu xayru xiwaam rabbu banikum yar leen seen doom alimuhum jàngal leen leen xamal leen leen hazibu fatayaatikum jàngal leen taar ak silwiise seen doom yu jigéen yi fal ilmu xayru xiwaam taxawaay bi gën ci taxawaay yi mooy xam-xam kon loolu lu jara jàng la lu jara jara xam la te fa kay fa yurda yurja lil atfaali kamaalun isarta dawoon su dee naaxisaati naka la ñuy séentoo ci xale yi ak mat su fekkee dañoo nàmp weenu ku manqué xale bi nàmp benn ku manqué nan lay mate kon loolu jar naa bàyyi xel bu baax a baax kon na ngeen di yar xale yi ci jikko yu ngëneel na ngeen leen di jàngal teggi ni mbaax na ngeen leen di jàngal euh, joxe addiya yëkk yëkkati hadiya joxe yonte yàlla Muhammad nee na ko bàyyi xel ci njaboot gi sëñ Bamba Xaadim Rasul jàngal na ko nit ñëpp farham saxiran wala takkun mudaxira anhu layaadan min nasihatin tara fiiha fiima fiha laha rushdan wa baxiril kabir wala walaw raaytahu daifan wa xaqir ñu yërëmal xale te bul nekk mukk di ko teggal fitna ak fu mu manti jëm nga tekkalu la neex de loolu baaxul lépp loo xam ne ak njuba nga ca jubanti ko ci waaye fegal mag doonte nag dafa néew doole mag mi eh, eh, amul kattan amul man-man waaye bu mu tax nga doyalil ko mbaa nga xeeb ko te bàyyi ci xel bu baax a baax a baax fàttaliku Cheikh Abdul Xaadir al Jilaani moom ni mu yaroo woon te dëggu te njàngal ko loolu ba mu xam ko ba mu dee yëg sàkk sa ay ay sàcc ñu ni ko yow ñaata nga yor ci misaal mu leen man yor naa ñaari junni ñu ni ah ñaari junni pour agresser ko mu xamal leen li mu yor ci jikkoom te xa te agresseurs yi dañoo mujj xool yar beeg melokaan bi jikkoy dëggu yi ñu ànd ak moom ba ne ko kon nan ànd ak yow ba fa ngay sàkk ko xam-xam sax ñu sàkk ko ndax doy loola te booba ndaw la ndaw te dañ ko jàngal yar ak i teggin sëñ Bamba Xaadimu Rasuul ci yaram ak segitam ak melokaanam moo tax mu ne wa min ta addubika an laa tandura xaqan li nafsika ala shaxsin dara bal i'tabir a'tabir min nafsika al adaba wala tutaaliban bihi al asxaaba wa kun maa naasi jamian dëhrëka kama tuhibu an yakunu maak nee na na nga ànd ak yar say teggin na waral bul gis kenn ak ku manti doon ni yow da nga koo gën wala da koo ëppale dara jàppeel sa bopp ci wàllu yar ak teggin te bul yéene sa mukk kenn ab safaan bul sàkku itam yaa gën kenn yaa ëppale kenn yaa man kenn nekk la nit ñi nekkin woo xam ni sa diirub jamono ni nga bëggee ñu nekkee ko yow rek àndee ko yow àndee kook ñoom ndax doo bëgg ñu ànd ak yow ci xeebeel doo bëgg ñu ànd ak yow ci geebeel doo andi bëgg ñu ànd ak yow ci doyadi kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax xam ne luqumaan ruq luqumaan dafa tànn ci doomam yi xaleem yi di leen dénk ne naa leen dénk yénti mbir yoo xam ne na ngeen ko bàyyi mu dénk doomam ja ni ko te sàkka is nay ni wan sa is nay ni maanaam da nga da nga da nga nanga nga da fàttaliku ñaar sam xel bu mu ci jóg waaye na ngay fàttali ñaar sam xel bu mu ci dem benn ñaar yi nga xam ne dama lay dénk nga di ko fàttaliku sam xel du ci jóg benn yoon xale nga de xale ngeen yéen yëpp waaye bàkkaar ak ak ak dee bu leen ko fàtte sam xel sam xel fu mu nekk fu mu toll na nekk ci bàkkaar ni mu garaawe ak ni mu bone ak ni mu ñaawe waaye na fàttaliku ne dee day dab looy def séddal dee dee ci bàyyi xel waaye ñaar yi ma leen ngeen fàtte ko seen xel bu mu ci demati mooy lépp lu baax lu ngeen defal nit ñi fàtte ko lépp lu ñaaw lu leen nit def defit fàtte leen lépp lu baax lu ñu la def lépp lu baax luñ la luñ la defal loo loo xam ne da yaa ko defal nit ñi lu baax loo defal nit ki sam xel na ci génn bul fàttaliku ni naa ko di mille francs wala jox naa ko cent mille francs wala jox naa ko un million bul ni fàttali joxat maa ko yóbbuwoon ci sama oto bul fàttaliku itam ni maa ko yenn yenn saako bi wala maa ko defal li lépp loo def ci lu baax ci nit ñi fàttali li nga defal waaye lépp lu ñaaw lu la nit ki def bu ko fàttaliku fàtte ko ndax soo ko fàttalikoo sam xel mën naa nekk ci fayeeku kon yooyu yooyu jar a bàyyi xel la ñu jàngal xale yi dëggu di wax dëgg ak lu mu métti métti rek nanga wax dëgg Ibnu Omar ndeysaan euh, xale la woon waaye mos a dégg benn xale benn xale ànd ak yaayam yaayam naan ko jël soow mi nga dolli ci tuuti ndox ndax mu xaw a bari ah wax ja nag yéeme lool xale ba ni ko ah waaw naka la ñuy jëlee am am ndox di ci def soow ah, soow di ci def ndox ngir mu bari rek te Omar loolu da koo tere mu ne ko kay kuy Omar mu ne ko Omar Omar nekku fi Omar nekku fi mu ne ko waa ji bu fi Omar nekkul séddal yàlla yàlla bi bindi jaam yi te tere ñu nax nit ñi ak di lekk seen alal ci lu dëgg kooku sédd ko Omar dégg ko rek ni kii xale bii topp xale ba ba xale boobu wax nañu ni moom la mujj dencal doomam kon loolu lu yéeme la nga xam ne wax nañu ni sax ndaw sa doon wax loolu di jigéen moo jur doom ji ñuy wax Abdullahi Omar Ibn As ah, ah, moom moom moom moom moom mooy kar loolu kon kiimaan la loolu ah, kiimaan la nga xam ni melokaanu jikkoom ak doxalinam ak ak ak melokaanu mbaax mi mu nekkan moom moo tax mu jur toom tànneef yoo xam ne dañ koy roy ba daan ko jaa tudde sax ni xulafaaw rashiduna yi bu ñu doon juróom kon moom ci la bokk ndax moom dafa yaru woon lool yi woon lool lay firndeel yar ba ak yiw dafa nekk ak soxnaam ñu di leen fay xaalis ab xaalis bi ñu leen di fay mi ngi mel ni ñaar téeméer la woon ci jàkke ji ñi doon jiite te moo doon jiite jàkk ji soxnaam di jël ñaar téeméer yi di ci jënd ba mu des juróom fukki dërëm mu denc ko juróom fukki dërëm yi daal lay denc ba mu matum at yàlla dogal bi mu ko bi mu dinjee lam dencan muy xaalis bu baree baree bari mu ni Omar ah, ah, Abdoulaye ibn Omar ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko man de lii moom dama koo góorgóorlu ban ba denc ko ndax dama doon sakkanal dépense ba téeméer ak juróom fukk rek laa daan def dana bëgg ñu jënd ci ab laal soppi suñu lal bi fii yu dëkk rafet mbaa ñu defaraat ci ay ah, ay ah, Abdoulaye ma ne ko ah waaw yow loolu nga xalaat mu ne ko waaw damaa xalaat ni buñ ko defee dana am lal bu baax bu njëkk te amuñu xaalis amuñu dara moo tax dama doon sakkanal ñaar téeméer yi ñuy fay may jël juróom fukki yooyu di ko denc xam nga jëf jooju jëf ju baax ju yiw la ndax sàccul alal ji def ko lenn Abdullahi ibn Omar ni ko déedéet déedéet Abdullahi ibn Omar ko mukk xaalis boobu nañ ko duggal ci baytul maal baytul maal muslimina néegub alal jullit yi kon kat ñaar téeméer ëpp na ci noonu ba mën nañoo dund ci téeméer juróom fukk lu matum at ñu ci dund kon alal ji daa koy def ci néegub yàlla ji daal koy jël ni ko du du ci jënd alal du ci jënd dara dafay delloo ci néegu yàlla bi ngir ñaar ba mu mekk ak mbaax gu mu mel ak jikkoy ngëneel ju wér Abdoulaye Umar noonu la def te noonu la mel jikkoy tànneef la te wax dëgg yàlla qualité mbaax yooyu mu nga xam ne moom la juddoo yaroo ko màgge ko moom la def ba loolu la continuer kon ñu bàyyi xel loolu jàng alxuraan itam xale yi ñu jàngal leen alxuraanu karim ndax alxuraan moom tudd na xakim tudd na karim tudd na majid moo tax alxuraan nee na yaa auzu billahi auzu billahi min shaytaani rajim bismillahi xaaf wal quraanil majid yàlla wàcce ko kon mu nekk ku tëdd ku tëdd ku tëdd ku tëdd tudde ko nuurul mubin leer gu wér gi walla xaqul mubin mustabin la dëgg gi nga xam ne day leeral lépp dara du ci lëndëm gënal set nit lépp lu mu di doon ci ay wax alxuraan da ko gën a set ay wax gën koo koo wérle kon euh, njariñam jéggi na dayoo bànneex bi nekk ci alxuraan buñ koy wax mu jéggi dayoo nga jàngal ko alxuraan ci tajwid njànginu alxuraan mu neex nga xam ni xale yu ndaw ñoo mokkal alxuraan léegi euh, jàngal nañu xale yi ba ñu mokkal alxuraanu karim te ay tuut tànk lañu waaye dañu mën a tari alxuraan tari bu rafet maanaam waxtaan waxtaan mu rafet te lépp alxuraan la di dimbali daal fii xabaru ma man xablakum yonent yàlla Muhammad nee na alxuraan xibaaru ñu leen woon mi ngi ci wa man ba'dakum day leeral ñi ñi ñi ñi ñi xibaaru ñi ñëwagul ci yéen mu ngi ci waaye leeral gi ci seen ginnaaw te fekkiwu leen ko nga xam ne na te mooy àtte seen diggante waxu ko ma bay na ko mooy àtte seen diggante kon alxuraan nañ ko jàngal xale bi mu xam ko. njàngin wu leer ci alxuraan njàngin wu set ci am fasaaxa loolu it ñu bàyyi ci xel bu baax a baax kon mbokk yi yooyu ay njàngin la yu ñu war a bàyyi xel bu baax a baax eh, yonteel Muhammad jàngal nañu ba tey ni iqrawul quran fa innahu yaati yawmal qiyaamati shafian li ashaabihi jàng leen alxuraan ndax alxuraan day ràmm ëllëg ay àndandoom ay nitam suñ bàmban alxuraan ci mbaaxam ak yaram ak yëgam ak bëgg gum ko bëgg ba jéen ba daan jël alxuraan ji di ko teg ci kaw lal yi di toog ci suuf di di ko teg ci kaw di jël parfum yi di ko wiccax ay parfum misk naan ko yaa kitaabal karimi ant habibi yow téere bu tedd bi yaay sama xarit yaay sama soppe wa xalili yaay sama xarit waxab lu kunta tabibi lu jiitu loolu it yaa nekk sama docteur bi may fecc mu naan wa afdalu zikri kitaabullahi maa tadabburi wal intibaahi alxuraan li gën ci li ñuy tudd yàlla mooy téereb yàlla bi di alxuraan ànd ak seetantal ko ak yeewu ci wa aayatun waahidatun tudbirat fiihaa tafawwaqu xatmatan minhu xalat wa dum ala siyaari ilmin wa amal li wajhi rabbika faqat azza wa jal duumu ala amri rabbi bi amri cheikhin aarifin murabbin sëñ Bàmba loolu la jàngale nee na li gën ci nit mooy donte ayib alxuraan la nga jël jàng aaya bi settandal ko moo gën nga jàng kaamil bi rek tëj ko nee na na nga sax itam ci sàkku xam-xam ak jëfe ka jëfe xam-xam ba ngir jëmmi kan jëmmi yàlla subhaanahu wa taala képp ak jëmmam ci tëdd ya na ngeen sax ci ndigalal sëriñ buy digle te yare tey teg nit ci yoonam sëriñ boo xam ne daa xam yàlla tey teg nit ci yoon summa tilaawatul kitaabi yan faw taaliyahu walil jinaan yan faw alxuraan ki koy jàng da koy yëkkati teg ci kaw àjjana it da koy yëkkati teg ko ci kaw al ilmu maktasaba xashatal alim wa man xalaa minhu fa jaahilun munim sëñ Bàmba nee na xam-xam mooy loo xam ne mooy fàggul nit ki xam-xamu mooy ragal yàlla la koy fàggul te ku ko ku ko fi bàyyi jaahil bu rée bu yeddu nga kon nañu góorgóorlu ci ndigal sëriñ Tuubaa moytu tereem ji di ko bàyyi xel itam ndax alxuraan la fonk lool daal di ne kitaabun bihi narju minallaahi rahmatan wa nanju bihi dunya uxra minal karbi alxuraan mooy téere bi nga xam ne ci lañ yaakaari yéen may yàlla ci lañu muccee àddina ak alaaxira ci njàqare rajaw naa minal mawla bihi xayra matlabin wa fus naa biha bi ma waxtafa fii kulli dafin wa fi jël bi sëriñ bamba nee na alxuraanul karim ci lañu yaakaare lépp lu ñuy sàkku yàlla tey pexe ci te texe nañ ci ci la ñu muccee lépp lu ñu dàq ak lu ñu di ak lu manti doon alxuraan ci moom lañ koy amee am njabootu boppam gu mu tuddee Cheikh Abdoul Ahad Mbacké njaboot googu jéggi dayoo ci kiimaan ndax waxaat nañu sëñ Moudou Moustapha Mbacké alkarim sëñ Moudou Moustapha Mbacké alkarim di taab sëñ Bamba Xaadimu Rasuul Cheikh Mouhamadul Fadal alkarim almajid moom topp ci moom ak sëñ Baara waaye tem si Abdou mbakke mi nga xam ni mooy ñàkki caaxaan nga xam ne mi ngi ci daari kaamil sëñ Fallou Mbacké def na vingt-huit kaamil yoo xam ne da koo bind ci ci alxuraan te tu tànk la jamono bi jamono boobu sëñ Abdou alxuraan la daan waxtaane moom la daan addise di ci nettali lu bari nga xam ni kon kiimaanu suñu borom la kon kay loolu jar naa bàyyi xel bu baax a baax a baax ñoo bàyyi xel ni njabootu suñu Bamba gépp ba ci sëñ Saaliwu Mbàkke mii di njabootu suñu la bëgg ndaw ñi lool def tool yu ñuy wax xel koom ñëpp di fa dem ku fa dem say aajo faju taxawu gone yi yor leen daal di wax ni xale yii nga xam ne ñoo fi nekk jox leen ma xale yi ma def ci ñoom li sëñ Bamba defan ci ñoom li mag ñi defan ci moom li mag ñi defan ci moom sëñ Bamba mu mag mu tedd mu yiw ma kilifa ga di borom Touba la mu defan ca mag ña ma def ko ci ndaw ñi donte yiwu ma ko nag ndax woyofam nga ak melokaan sëñ saali wu Mbàkke noonu la meloon ba ni ko alaaji baara Mbàkke doon na ci xilaafa gi ba sëñ Sidi Moxtaar Mbàkke doon na ko ci xilaafa gi ba tey sëñ Muntaxaa Mbàkke mu tedd mu yiw mi di kiifa ibnu cheikh mo Mouhamadul Bachir alkarim Mbàkke loolu loolu lu jar bàyyi xel la nu wéeruwaat ci sunu sëriñ di sëriñ Bachiru Mbàkke moom sëñ Muudu Musa Jeng di tànneef di kilifa di ku ragal yàlla di ku bëgg alquran di ku bëgg jaamu yàlla di ku fonk yàlla bàyyi na xel lool innama yaxsha allahu min ibadihi al ulama yàlla daal ñi ko ragal dëgg dëgg dëgg dëgg ci baa ci jaamam ñi daal mooy borom xam-xam bi sëñ Bamba nag bàyyiwoon alxuraan lool ndigal yi mu tege daal di ne alxuraan daal laxat saara kanzan baaxiyan izzatan lana yaqina bihil mawla kull yaqina bihil mawla aza kull zi dabbi tafaaraxana al aada wa shakk wal bala bihi unil naa alxisba baada baada intifaal jët bi sëñ Bàmba nee na alxuraan moo nekk ndàmb luy des nekk te da nga ci nun dina fegal lépp luy dox jëm ci nun dëkk jëm si ci nun suñu borom a ngi nu fegal nañu loolu ci alxuraanul karim ci lañ ci alxuraan la ñu tàqale ko yi ak lu ñu si ci sàkk ak ay balaa ci la amee lépp luy naat ak a nëtëx ba pare lépp luy takk ay caaxaan mbaa lépp lu dul noonu rek yàlla dàqala ko ngir dara jee alxuraan dénk élèves yeeg dongo yeeg taal bi yëpp ni man fa fa man araadal xurba min mawlaahu fa leeqale alxuraan laa ku bëgg a yàlla na jàng alxuraan te bu koy fàtte kon nañ jàngal xale te deen ci yar waaye juddu ñu tudd la bu ñu lay tudd dañuy nodd sa ndoxam di joor sa sa noppam di joor liqaam ci sa noppam càmmooñ jox la toxetal nga nga nga ñam ko door a door a door door door naa ñam sa weenu yaay door cee nàmp ñu baree bari nag <clears throat> dañoo dem ba dañuy fecc ci kóllëre ndax bi ngay juddoo toxetal lañ la jëkk defal ab sëriñ lañu woo pub daara mu jëkk ci bi nga xamee ni itam dem nga ba am juróom-ñaari fan ñu woo sëriñ daara ba wala ilimaan ja mu ñëw defal la nodd ak liqaam tifli ko la léegi ñu wàccee la kaabilu alxuraan nga màgg ñu jàng loola ay tubaab ay anglais ay espagnol bàyyi alxuraanu karim loolu doy na waar trop kon day mel dañuy fecc kóllëre te loolu dara jëru ko te soo faatoo noddukat ba imaam ba la ñuy woo mu taxaw kàbbar rek julli la ndax nodd nañ li xaaman nañu léegi julli rek moo des diggante boobu nag def lu ñaaw amut solo kon nañu góor góorlu ci wàllu yàlla yar suñu jëm yar suñuy xel yar suñuy xalaat te déggal lool mag ñi te yar ndax xale yi kon loolu mooy li ñuy tënkagun ci yéen doonte jataay bi bëgg nañu mu gën a yaatu doonte doon nañ séentu suñu mbokk mu baax waaye mu mujj am ngànt rek ba tax mujj ñëw dañuy ñaan yàlla alxames jii nu jëm insha allahu taala mu teewal ko ci jataay bi yàlla na fekk muy tam yow na boo xam ni nawet bi dina fekk mu yaatu ci nun lool ci mpiix ba ñu man fee teew waxtaan wi ñu gën ko mën a yeesal ñu ngi leen di sant leen gërëm leen ñaanal yàlla jàmm bu boobaa rek li bëgg dañ ko def insha allahu taala yal na yàlla dogal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu إذ في البدايات خوف الصنب يسجره وفي النهايات إجلال الجلالات منها تلاسم هدم النص دون ريا من كونها ذات